21 heures jotee si la candidat bu coalition Diomaye président yegsee sa Diourbel ànd mbooloo gu takku rawatina ay ndaw. mobilisation laata muy yegg si fii si Diourbel nag jot naa jaar ci yenn ay dëkk fu si mel ni que di fief responsable libéral ba woon di Aïda Mbodj mi nga xam ne dafay jàppale candidature Diomaye Faye. ngi fay di dénk sama doom ju loxo gannaaw bi mu jëlepp kàddu daal dinay tontu ñenn ci ay rawatina candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar mi koy attaqué ci wàllug expérience am. dégg naa souvent samay adversaire di wax ne attanul réew mi parewul wax leen dama leen yóbbante ci ñoom na leen wax ne maa leen gën pare foofu. inspecteur des impôts ba woon daal dina itam xamle ne bu ñu ko falee ci bopp réew ma dina xeex ger gi. réew mi bu ngeen ma ko joxee set wicc lay def dina set wicc càcc mi dina fi jeex luubal gi dina fi jeex lii réew mi nekkee 12 ans ngi nii mënul continuer bu ñu amee cant bu rëy bu leen di tegal dossier di leen ko tegal ci suufu cant bi di leen ko tegal rek mosuñoo yërëm askan wi. Covid 19 ñu sàcc lu xew ñu sàcc loolu dafiy jeex loolu nag moo tax suñu candidature am solo parce que seen une candidature de rupture beneen candidature bu leen fi jaay bu ngeen ko seetee ba ci biir seen candidature de continuité. gannaaw Diourbel nag caravane bu candidat Diomaye président te dañoo jubal dem fële sa Mbàkke nga xam ne itam doon na ab zone bu am solo ci électorat bu Sénégal.